waaw salaamaaleykum gars yi ñu ngi leen nuyu tey nag dañoo seet si woon sunu papa Mor Diaw xam naa ni gise bi du xaw a yomb waaye incha allah rabi fas yéene na wax euh, ay vocal bu ko defee ñu xam bu baax li nga xamante ne si góor gi daal na ko def fii ci Goudomp bi comme que ñoo ngi ci màggalu Goudomp bi léegi ñu bàyyi ko mu nuyu leen bisimilah papa ñu ngi leen nuyu baax nga ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi ñuy déglu. waaw ah, salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi leen mu ngi leen di ñaanal gudd gi fan ak wér gi yaram amiin yaa ah, góor gi moom a ah, nekk na moom lu yàgg mhm. paase na na guddomp dem na nu guddomp ak jibe jibelóor foofu amoon na fa tool mhm. amoon na tool jibelóor eh, tool ba ñet ñetti teen mu ngi woon ci biir mhm. ah yooyu yëpp tour tour tour tourné nañu ko. ñun mhm. ak Samba Omar ba ñoo àndoon ah liggéey ñu ñu ñëw Goudomp. Mhm. Goudomp nag moom presque saa bu nu demoo Goudomp saa bu bu duñ demee Goudomp suñu dikkaatee mu ñaari fan ñett mu ne damay del del dellu Goudomp. mu mhm. ne Goudomp. bu ko gaa yi xamoon ah, man man bu ma bu nu ko xamoon di di di dina fo dina fu kër waaye ah sant xam nga yàlla moo ko dogalut mais bëggoon na Goudomp bëggoon Goudomp tout mu suba ngoon nu ngi Goudomp xam nga avant Badiane Badiane di dëkk Goudomp mhm. Ablaye Diallo kër Diallo loon jëkkoon di nekk mhm. bi bi Diallo bi bi Diallo toxo ki eh, gas eh, ki eh, nu mu tuddati bi mu bi mu bi mu toxoo jógee gu domp app mm-hmm. ñu ñu ñu euh, commencé kër di dem kër ba Badiane waaye waaye ñu ñu ñu ngi jëkkoon ñu ngi jëkkoon euh, euh, ñu ngi jëkkoon dëkk kër Ablaye Diallo bo booba Diallo booba Diallo moo nekk gu domp ah, ma ma bàyyi fii ba ba kii. waaw waaw na waaw. wax bi moom ak allah waaw wax bi wax bi moo moo moo neexatul. moo moo neexatul. waaw dëgg la. gis nga li mu li ma bëgg a wax. waaw damay jàkkaarloo moom. waaw mais mais du ma koo xam. ndeysaan. macha allah yal na yàlla dolli wér bu baax ci leen ma loolu rek yal na la yàlla defal wér bu baax lu ma neex moo si dama mm. doon rappelé lii yëpp ndeysaan dëgg la waaye sant yàlla rek waaw góor ji moo neexul mais mu ngi mu ngi. mu ngi évolué non léeg-léeg damay jàkkaarloo gi man. waaw dina ñëw incha allah dina ñëw. yàlla baax na yàlla baax na. ñaanal leen ma ci rek yàlla na ko yàlla defal taw foofu. amiin dëgg yàlla sunu papa bu baax la. moom heure bu ñëwee day jéemee di ngeen gis. waaw bi moo dul moo dul bàyyi noonu moo tax. dañuy sant yàlla bu baax rek di ko ñaanal yàlla delloo ko. voix bi ba mu ñoo baax delloo ko wér gërëm yëpp bi jaay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def lii dafa baax a xam mu ne dégg ngeen ko comme comme guromp ba fi góor gi di ñëw kër jàll ah. la daan commencé ba jàll tuxoo si lay doog a dem kër ba jàll sant yàlla mm. tournée yi daal na neex de tournée yi de eh, tournée bi benn la woon <laughs> tournée yi waaw eh, ay ay ay kii ay weer la doon def. tournée bi ngay ànd ak nit yàlla muy def ay kéemaan chaque jour. rek loolu dafa dafa ëpp. saa bu nu ñëwee su ñëwee mu ne ah jaw na damay delloo gu domp suba de. ndeysaan. <laughs> damay tiit ma ne ah wa góor gi de góor bopp dafa bëggoon gu domp. ndeysaan. ah sant yàlla sant yàlla. moo région Goudomp bu nu avancé seen tali bi tabarkalla. Ah, ah gisoo ni ma waaw lépp waaw. Ah, na ah, avancé lu góor gi sànc. Mhm. foofu du du mën a dellu ginnaaw de. Eh, macha allah dëgg yàlla. gu ndomp gu. donc kay nañ avancement bu. avancement bu mag. waaw ah, bu mag moo fa am. ah, ah sant yàlla. kontaan nañ bu baax naa dañ lay bañ a rek. waaw kon waaw yàlla baax na. waaw yàlla yàlla delloo. ba ba nga mën lépp li ma bëgg wax lépp dama koo mën sant yàlla rek dina ñëw de bu neexee yàlla. yàlla dina la delloo lépp. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla mun na ko. amiin yàlla muy wéral yàlla na la wéral ci daraja yonent sallallahu alayhi wa sallam. amiin yaa kontaan nañ bu baax.